بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله di rafetlu xam-xam bi ndax ñun à date bi ñu ko defee wax dëgg leer na lool ci suñu njëlbeen laaj dafa mel ni ci su ma déggee sa wax ci njëlbeen wax bi daa mel ni da ngay dàq mat la bu am sunna wa jaraa su fekkee ne su fekkee ne noonu la demee lan la ñuy defar bay ci sëriñ bi bi muy wax murid awal waajibin alal murid ma nga ci xarit te mu mun fexe jën mat la baax la sunna wa jaraa wa tilka sunna loolu mooy njëlbeen laaj.
xam naa ndax boobu bu ñu gis daa mel ne xool waaye ci naa la muy tax ci la ñu jël sax yi suñu xalaat mën nga jël mën nga jël sax yi sunna maa jamaa bu fi jël sunna xam naa xam nga ne ndax xalaat yi muy lu tax yi lu ko def yi ko ko ci mu ko ci mu ko ci mu ne daa la tax yi sunna am na ka yaa ci sunna mën nga ko yàgg naa ko ñu doon ci mu ko xati waaye mën ngeen ko mën ngeen ko waaw waaw su waxee même su ma gën a gën a mën a mën a maanaam loolu am na te te am na moom loolu dina ma doon fee fee ko xale fee rek xam na réew mi nag loolu moom am ngeen yoo xam ne moom lu existe la lu am la loolu ñëpp jëm waaye taxaw islam mooy mooy taxaw sunna taxaw islam mooy ñaar loolu islam bi ci la li li laa wax laa wax ne fële parce que mooy li jëm na ñoo xam nga dem naa ak murjiya mooy li nga xam ne ñoom ñoo ëllëg ñu dem ak ñu ak moom rek ñi ak moom rek ñi ak ñi ak dañ ko laa yow ñu ñu ci am ñi mo ko ñu ñu ñu ñëpp ñu xawale ko dafa ko ko ko ko ko ñu ñu kaay daal ci ka ko ñëpp yi li mu def ci ñaan ya mu xajal bu ñu ñu ko ñu ñëpp ñu ah wala sax moom ci laaj bi ñu jëm naa ñoo ko laaj bi yëpp maanaam dina daal léegi maanaam léegi laaj bi laaj bi ñu ko bokkee ko naa jëm ci wala ko loolu yëpp problème bu mu mu mu mu mu mu jeex si nga si nga lu jaay mu sa tegaat nga ba ma sax du jaay comme ñu defee xam nga loolu yëpp yëpp yàlla na ko ñu ne ñu ne waaye ci laa ko mën a dee woon
ñaareel laaj bi xam naa dañ koy boole muy mbirum xadis daanaka da nga ne rek ci jamono yi Omar ibn Abdul Aziz lañ ko commencé dajale mais dañu bëgg nga leeral ñu ndax xadis yi dajale nii xadis wér na wala xadis wér na wala ndax daabit yi nga xam ne nii ñi dajale xadis moom lañ joxe xadis yooyee dina wér wala déet jëm bi dajale xadis rek parce que da nga ci biir waxtaan xam naa loolu bàyyi woo ci xel sax waaye man maa farmacé woon nii rek da nga ne ci jamono yi am Omar ibn Abdul Aziz lañ ko commencé dajale ndax kon ndax xadis yooyu ñu wérum yi ñu dajale woon mooy jamono yi Omar ibn Abdul Aziz ndax dafa wérum ba ñu war ci sukkandiku ci ba xadis texte bu leer ñëwee ni yonte bi alayhi salaatu wasalaam nee na nangam jullit ñëpp war cee mën a sukkandiku wa ilaa ndax demeewul noonu ñaar rek mooy mbirum siyaan yi dinaa ñu laaj tuuti la sax ci ne alxuraan ji ñu jàng ñoom suñu alxuraan la comme ñëpp mais nag am na ci ñoom ñuy wax ne alxuraan ji matul def na lu ñuy wax suuratu wilaaya yaakaar naa yu muy gëstu war ngaa xam mel noonu ñooñu ñuy wax loolu it naka la ñuy def ak ñoom.
xam nga alxuraan ji tuum naa ci xadis xadis xadis maanaam dañ ko jamono nee naa la dañ koy jamono nag booba fekkoon na jullit ñi. nde doon ay pàcc di xuloo waaye sëñ bi siyaan bi siyaan bi nee na la man li ma yor jëlee ko ci kan maa ngi ko jëlee ca baareer mu jëlee ko ca diw mu jëlee ko ca xasan mu jëlee ko ca aliyu mu jëlee ko seen ci sént bi ah man de wax dëgg yàlla fan laa koy dindee sang soosoo nga xam ne ñoom ahlu sunna ci ci seen bopp ñoom it nga xam ne ñooy patrimoine bi xam nañ ne mu Useynu ba bañ koy rey Seydina Xuseyn bañ koy rey ci Karbala na nga sol mantob yonent bi daali satu wasalaam kaala wakalam da nekk yonent bi daali satu wasalaam ne woon na ma nekk ak Xuseyn malakaatam ku ñu rey dam sawara gaa yi ne bu leen ko ko ko déglu bu leen ko déglu bu leen ko ma man na na na na rey te moo leen jiite tusbaar ñu ñu ñu ñu rey ko kooku suñ bi xoolee keneen kii jiite tusbaar ba ngay taayee yaa ngi ko ñaal yow ba nga ba ngay saa yi yaa ngi ñaanal yéen saa salaam ak ak ñu ñaan waaye ci yow nga noppi rey ko ma ma dama ne ki mën a gëm ne Seydou Seydina Hussein mooy surgente bi ko ko rey dem sawara ba noppi gëmaat ne mën naa ko rey te du ma dem sawara kooku xadis yooyu yéen mu génne problème la ma ne xadis yi baax na faaw ñu gëm xadis yi mënuñoo julli te gëmuñu ñu xadis mënuñoo war a te gëmuñu ko tey maanaam li li parti bi nga xam ne ci ci lay ñu bokk mu yàlla ca caaru lu sunna Buxaari muslim faaw ñu ñu ñu ñu gëm ko waaye nag Buxaari moomee ak toob la ak bu Buxaari toob la toob du nga de ak toob la toob toob boobee gëstu ci ci xadis ba ba dee jëlee ñu ko nanga mi xadis yi jëm day doon muccoon na wàññi ko maanaam xadis yi ci wéy am na lu ci wér am na lu ci wér da ngay dem ci usul fiq mooy lan ahadis yi ak saxam ak saxam maanaam dañ ko jot nit ki mën naa dund ab jurit bu defee weddi ne ne abis am na bu defee nekk ab jurit alxuraan dong lañ xam ne wir na moom wir na ne lépp alxuraan a ngi nii waaye nag wu maanaam digg wala moom njort la maanaam léegi fan yi ak ayitu suboot alxuraan ko am ak ayitu dilaala alxuraan ko am fan yi suboot moom la hadis am loolu usul fiq wax maanaam xadis yëpp mën nga koo sànni yow ah ci ci xadis bi na na na xadis amul su ko neexee da nga ne usul fekk d'accord ci waaye nag soo nappee noo jullee ah problème am na foofu foofu nga ci ci nga topp topp ci ci ci kenn waaye nag saaba yooyu yu jënt bi jënd jëmb la ñee la saaba bi sangam nee na jënt bi nee na nangam kenn la jënt bi nee nangam ñaari wax yu wuute usul fekk ne ne ne ne nanu xool kenn gis naa jënt bi jëf su ma gisee loola am nag moom keneen keneen keneen digg naa ci cënd bi ñu ndax jëf mën naa xool li wax loolu yëpp su fexee par jeex par jeex ñaari émission yoo xam ne ñu ngi fi moo ko moo ñu dàq benn taxaw am na maanaam wuute nañ te kenn lay wax xam nga loolu lépp ku ne xamee kon problème am na maanaam léegi ba léegi laa bëgg xamal ni loolu problématique am na problème am na problème loolu ñuy jàng mu ko yaakaar ne moo loolu dëgg la ju wér cëng mën naa am du dëkk nëpp naa ne ci ak gëstukat laa bëgg a wax waxuma nag maanaam doole moom gëstukat bi laa dafa war a dafa war a gëm ne li ma nekk mën naa am lépp du dëgg loolu nag mooy furoo yi mooy hadis yi ñu ñu xam waaye bu dee nag ci alxuraan moom ñun ñëpp d'accord nañ ci ne dëgg la. yéen ma leer na xanaa. chiens yi maanaam ci xam nga maanaam ak wuute gaam na chiens yi ñoom al imaama xam nga al imaama xilaafa gi. ci siyaa dañ ne al imaam ruknun min arkaanil aqida da dañ ne moom léegi yow ti ay saatu wa salaam sëñatu woon a dem te te bàyyi woon kenn ku ko ku ku ko wutu gars yi nag ahlu sunna ne ne déedéet ñu ne ñu ne ñoom imaam maanaam gouvernement bi gouvernement bokkul ci islam xam nga loolu loolu loolu wuute la maanaam ñoo ñëwee ñu ne la kat yéen bi daal di salaatu wasalaam suñu doom digaloon na ko ne ko na nga wax gars yi ni leen sa sama ginnaaw xaalis yow may wo ci wutu ñoom am nañu ay xaalis jox ah soo demee nag ca Sina ya am nañu tuddee alxulaat alxulaat mooy yoo xam ne dañoo bëgg si naan yu bëri ëppal mooy comme ni si si wax naan ñaan sëñ ci ba yàlla la ñu ko ñooñu xamuñ dara ay motu ay ma yu mag yi ci ay seen ñi nga xam ne ñu ñoom la ñuy déglu dëgg dëgg dëgg ñoom duñu wax ne mu ci alxuraan ji manqué na ñoom dañuy xam ne alxuraan ji mat na génn la waaye am na ci yoo xam ne dañ naan alxuraan ji manqué na si si si si si nañu nangam loolu moom ci foo dem fekk ko fa waaye loolu bu rek si yaan dina ngirum si yaan ñëpp nag mooy gàddu loola loola ñu xamul dara waaye te si xëy
beneen bi ñu ci dolli muy ndax comme aqida bi ni nga doon waxee al islam yoon seen aqida li ci leeral lu bare bari sëriñ bu ci waxee nga wax ko ndax ñooñu liñ doon wax bilaa kay ci lañ ko doon waxee wa ilaa dañ ko doon saxal loonu ne noonu la amee ñaareel mooy ndax gëntoon ñu leeral rek mbokk jullit ñi nan lañ war a fase borom bi subhanahu wa taala walit ñu leen dugal ci ñoo xam ne amatu naa fi la yoo xam ne mën na leen a indi ci ñuy xalaat yoo xam ne maanaam wartoon a xalaat dugg ci xaj yonent bi alayhi salaatu salaam noonu wax naan tafakkanu fil xalq wala tafakkanu fi laahi fa tuxlifuun asalaamaaleykum.
xam nga xam nga suñ bi maanaam daa bëgg xamal gone yi ne ko islamiste yi islamiste mooy islamiste yi xam ne ay jàngkat lañ ay bàyyi sëriñ ay sërfër lañ waxuma islamiste rek borom mbubb yi ju gàtte maanaam gis ko laaj des su kat sërfër kuy gëstu dëgg laa ñoo xamal ne liñ islamiste pire fii la ne moom ñu ëpp ci noonu Sénégal ñuy wër maanaam ni ndongo yi ni ni ni ñu réeré Sëñ Tuubaa ñu ne islamiste yi réeré Ibnu Taymiya islamiste yi dafa dafa leen xamal ñoom liñ gëm lu mu doon waaye di sol lu gàtt xamut kuy moom doo ko bëgg a xamal boppam ne ko yow li nga gëm mooy nii hadis yooyu Ibnu Taymiya nee na wér na Albani nee na wér Albani donc Ibnu Taymiya nee na dara wér ci lenn loo xam ne kitaabu sunna mën na ko taal enu ci yam loolu moom ñoom ñoo xuloo ci seen biir man man xuloo ma man man man man damay nettali man Ibnu Taymiya nee na Albani nee na islam si bi ne na xool dëgg moom yàlla di toog ngay xëcc xëy rek yooyu kooku si moom koo gëm yaa xam ko def leer na
dañu ko wax waaw loolu moom wax dëgg yàlla leer na xam na comme wàllu xam-xam la dana baax rek ñi nga xam ne ndax gis ngeen ne diine yaatu na yaataay woo xam ne nit ki saa boo bëggee jëlee sam xel yóbbu ko mel benn benn benn place rek da ngay am jafe-jafe mooy diine yaatu na yaataay goo xam ne comme yàlla jox na la xel te moom xel mi ci moom daa bëgg nit ciy gëstu li am solo rek mooy nit ki nay wari dëgg dëgg rek moo mooy mooy li nga xam ne ku ko am nga lépp dëgg nag kenn wu kaa pare la fenn rek ne ñenn rek ñoo am dëgg ñee jël sax muy dëgg loolu du maanu te moom it bu nee naa li muy yor dëgg comme le imam Saafi doon wax li suñ bi doon wax léegi ne ma sama xalaat kat jàpp naa ne mooy dëgg waaye nag jumte mën na cee feeñ xalaat ak suñ Moussa Diop mii nag jàpp naa ne jumte la waaye rek dëgg mën naa nekk dëgg loolu lu baax la lu am solo jullit bu ne di di natte loolu lu may rek nga ne ah ku bokk fii rek ak tam fii ma bokk nag ku fa tudd sax dama day mel ne damaa laal loolu boobu nag du du ko aadaal la ci ci ay gi gi gi soxla dëgg-dëgg su ko defee xam ne laa ngi bari loolu kii moom dafa wax ne yàlla yàlla yi yàlla yàlla yi ñu ne ñoom soo demee soo demee ñoom dañ lay wan yàlla directement wala dañ lay tegtal yoonu yàlla nga dem. waaw comme yow ne ne rek yàlla waaw lay mën yàlla
maanaam islamiste yeeg yàlla yàlla yi yëpp benn la maanaam léegi mooy adduna adduna yi yëngu rek maanaam kenn ku nekk da nga wo- ci wane sa sa sa mat nit nit ñi bari nañ xam nga kenn Sénégal ñoom dañoo bari bokk yow yow toy ma yàlla yàlla moom du waxee dara moom waxee dara maanaam yàlla ku ku ne la yàlla ngi nii moo ki islamiste bi dama doon ko wax rek benn lan lay indi non ñun moom du dund dund la ñoom islamiste bi rek tane na ko moom jëm naa andi ay ay ay ay hadis daal la yent bi neen kenn moom doo doo doo dara kooku moom ak njabar la la salaar du mu la jël ay tur yàlla lay lay laa déko fi nangam déru di nangam nangam nga ci ngay kuus ci loo xamul loolu yooyu moom du du dara moom waaye nag xam naa it nag sëriñ si it ñoo ci war a bay seen waar ndax dama ne commence ak foofu andi ko ndoxam politique maanaam ci ne gis naa ko ndoxam baaxul sama bëgg la da lay gis moom daa mar day naan kii mar bi ba ga dee moom mu andil ko am ndox ndox ma lu ñu def moom xamu ko day naan ndox la xam ndox la xam mi ngi nii sëriñ si ko ñoom seen rôle it nag mooy maanaam li ñu leen toppee woon mooy ku mar yàlla ñu mën na ko wan wan yàlla di mooy man laa mari laa ci borom la la ci waxoon maanaam quoi di dama la njóot si si si tubaab li mu woote mooy fay yëngu ak taglal nekk ci yàlla nga xam ne da ngay doon koo xam ne da da ngay dund li seen borom di du leen nga ne ca problème mooy quoi di ci borom loolu loolu yaakaar naa leer
waaw macha allah xam naa yeneen laaj yi moom xaarij bi mawdu la ay laaj fiq laaj ah comme xam naa bi tawee kanam su faax la waa faax yi si bari bi xam naa ne faax yi la day dem rek kon mel na ne mbokk yi laaj yi jeex na yii yi ci def daa génn thème bi ah safar la am na mbokk mu ma joxoon ab laaj xam ne loola yi ci li ñu waxtaan mooy ndax bokk na ci teggi ni julli boo ñëwee fekk ñu julli yow rek ngay xam ndax loolu dara ne soo dara néew ci
maanaam xam nga naar yi naar yi dañoo jàpp ne nit ku ñuul maanaam jiw fenn man da daa def nekk na Égypte nekk dugg ci jumaa yi di julli ñu ko def soo loxo dafay lank gis ko waaw lank loolu dafa koy gis xam nga lu ko war la man jàngale naa man dama tànn farata yi julli ak sunna ya xam du amu ca sag lu amu ca lii tax a jullee baax loolu bokku ca aada dong la soo am naa la bëgg yi man lank dama damay lank la def lank su su su ma neexee nag ma ma def ko waaye damay lank loolu la loolu la
ah jërëjëf Moussa ci leeral boobu xam naa duñ ne donc solo mooy bàyyi xel tamit maanaam wàccuwaayu li ngay wute ak nit ñi xasanul banna tiital bu mag yaa ngi baax dafa suñu ci ifrit moo ko taxaw mais masaa lay jàpp dëkkub kaw fekk ñuy xiiroo ko ñaayo ba xaw a tax la ñaari jàkka yi ci ne rek allahu akbar dañuy noppi ñeent ko lañ ko wax la ñaar lañ ko wax mu ñëw di ko laaj rek laaj ko di ko ci laaj mu leen li ngeen def mooy da ngeen ko ci bàyyi bu leen noddati ñëpp jàpp ne waaw nodd du farata te ànd julli ñi farata la kon nu ngeen sabantalee farata di topp loo xam ne farata da ngeen tàqale ko seen biir kon yooyu bu ñu ci gis waat tuuti ndax maanaam diggante xabdu gee sabli day ragal ne maanaam am loo xam ne alaaka ilaahi la day am fii Sénégal dañu soog koo ji naan day koor day amu koor dañ di julli woor ñaar fukk ak juróom-ñeent sa morom julli ngir bu yéene ñàkk koor ñi da ngeen mos benn bis da gis waat ci ruux islam dëgg-dëgg waaw bu dee bi fekk maye loo xam ne ko ci maanaam dañ koy ñor imam am malik yi mën naa topp ci ginnaaw saafe yi saafe naa topp ci ginnaaw xanafi yi maanaam suuf si amul benn jafe-jafe waaye nag julli bi sëpp yëg-yëgu bopp man noonu laa def ma masaa nekk ci bu mu bu jël julli su ma ñëwee ci jàpp ñu xam da nga xam comme ñoom su ma ci ma nga wax ma am naa ma ko laaj ma ne bëgg naa naan xam nga imam malik moo daan def na ko dee man wees naa yooyu man sarin kaa bi lay jàng histoire bi jikki na malik am na ñeneen ñuy sat ñoo xam ne malik ñu xam ak ñeneen ñu sat loo xam ne bokk ci masab malik yi waaye man damaa gis man dikk wér jullit ñi ñu jullit ñun ñëpp ñëpp xam du may xam du mën a kooku mel sama bopp yàq gi ma yàq jullit rek ma jëlal bopp kon naa def nii comme yàq na yokk sama jullit baax naa ko def waaye kon ñu diiru siwaat ci sew siwaat yooyu bëgg a caqale jullit yi yéen tasaare ci loo xam ne ba vraiment dafa ëpp ëpp na dal dañ ko dellu siwaat aussi waaye daal maa ngi jiitu sax si guddal bi ana mbokk mi wax ne ma léegi maanaam dama ñëw ci man ne dafay bëgg fu mu jàng la xool ma ne ko bismillah mu mel ne waaye foo xam ne kenn du ma xatal sama diine la ma allah day wax ni ci Touba ñu nga xam sa diine mu ne waaw ndax man sama jàngee si dërëmu si dañ maa génn si la xam ne dama xam doo tax man na ko jëlaguma rek waaye booy xam ma la génn jëlaguma la waaye soo xam dama génn la ma ne ko waaw muy bëgg wax ma ne ko déedéet man li ngay wax xam naa ko baax man sax bokkuma ci sama mbas sama xabar ndox waaye damaa yor daa nekk mi yor madrasa boo xam ne xale yi liy gëm juddu ci nañ leen ko yor bañ xam bu ñu nee wax maa ko seen xam-xam maay leen lay ñu def loolu la nekku ci waaye doo ñëw dina forcé bi leen génn ci la nga xool bokkul kon bal ban ci kër gi ñu jural mu nga ah man ne sama waa sama baay sama baay dama mujj génn kër gi ma baal ma taxaw ne moom ndax ndax ndax xam nga ma ne ko dafa musiba fa kooxul waaj de tàqoo say waajur kooku ñu ne tabaay barkat mu ngagi bokk dafa jub bu soor bu faatu nga bëgg ko jëlee loo xam ne mëtu faram jëm si waat suuf si sample ci lañ wax kon yooyu yàq ay yeex yoo xam ne war nañ ko gën a bàyyi wax ba xam ne diine daal du xuloo ko xeex waaw ñun ñëpp yàlla tax ñu jaamu boo demoon Màkka tey dama gis julli yoo xam ne dootoo wax sax xabdoo sabri noonu la ñuy julli lu ne ma aj bu jógee façon julli bu ne tax da ngay fàtte xabdoo sabri kon mais ñun ñëpp ci yàlla ci yàlla moo ñu teel yaakaar naa ci noonu yoonu yàlla yor saxal ñu déglu ba am saa waay
barke la suñu xaru ci yokk boobu moom it am na solo lool xam naa daal moom gis yi ñeex na ni ay goo xam ne ki ki na ko suñu yow naa na fii nii même loolu maanaam wàllu xabdu ak sablu ñàkk dëgg dëgg dëgg la maanaam ma fi ne gars yi ci bari dañoo taral xabdu gi ba jàpp ne yow soo ko defut amoo julli wala da ngaa wuteeg yonente bi sallallahu alayhi wa sallam te yow da ngay xool ne mais yow boo wuteeg yonente bi sallallahu boo même boo jàppoon xabdu mooy sunna mais xanaa wuteeg yonente bi sallallahu benn sunna la boo tasaare nga nga nga dem biddaay ak yow li ngay li nga dëppoo yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bu dee benn rek nga wuteeg moom loolu wut ko xanaa moom moom moom moom te moom est-ce que moom sunna yëpp jël na ko moom it comme mbir la ma waxoon daal daanaka mënta daal bi mu mu lay andil ngay noonu ak say bokk jullit wala ngay taxali ko ñoom àggu fa àggu fa ba tax na ak yeneen i yeneen yoo xam ne xam ne jotaay bi du ko maye ak waxtu yi waaye daal ñu ngi delluwaat di sant bu baax sëñ Moustapha di sant yi mbokk yi nga xam ne boobu ba léegi bàyyi ni seen i yitte ñëw mel ne fii nag Daarul Xadim moom dañuy fas yéene mu nekk jotaay boo xam ne béréb boo xam ne daal dañ fiy dundee l'islam ñu nekk daara daara lépp ngi ci ku ne ñun bu ñëwee fii mooy dañ la jox ñu waxtaanee l'islam ndax bu dee am na koy dégg wala loolu du waxtaanee te loolu xam nga ne boo ko waxtaanee wut am na ci xel yu mu nekk wala xol yu mu nekk fi ni waxtaane gi nii am na ci ñoo xam ne nii dana danañ ci jëriñ njëriñ danañ ci xamee lu ñu xamee wutoon ñaareel bi ñañ wuteel ñi nga xam ne dañuy wutee suñu soo ay xalaat yi dañuy nga suñu soram yi kat moom am na ko sax moom kat dugg na suñu biir ba ñuy waxtaan bay waxtaan suñu kii ñoom buñu jëmee loolu rek buñ toogee it njëriñ fay waaye bu dee kenn ko da ngaa toog fa nga toog nag wax dëgg yàlla dañuy gën a sore rek te lu ñu gën di sore islam rek moo ci moo ci gàtt kon daal wax dëgg yàlla ñu ngi sant bu baax ñu sowaay ñaan yàlla suñu borom doole xam-xam bi yokk fan yi ba li ngeen yéene ci liggéey l'islam suñu borom defe leen ci koy yor seen fàll yi ñeeneen ak mbooleem gaa yu baax yi nga xam ne wax dëgg yàlla ba jullee ba léegi ñu ngi bàyyi seen yitte yëpp toog di diglu wa ma uridu illa al islah mastataa wa ma tawfiqa illa billah kon mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu